الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi mbokk yi ñiy déglu ci sunu émission kàddu gu sell gi man seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall ma dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi di dellu di nuyu ñépp bàyyiwuma kenn di nuyu képp kuy yewoo fii ci biir Sénégal di nuyu itam mbokk yi nga xam ne dañuy déglu bitim réew jaare ko ci internet bi ñuy sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist yàlla mi nga xam ne moo ñu may ñu tal ko ba teew fii ñi ngi koy sant di ko gërëm te di ñaan li nga xam ne ñi ngi ko fiy waxtaane yàlla na doon yokkute ci bépp jëmm joo xam ne yaa ngi koy déglu dama leen di fàttali rek li nga xam ne aji sax ji wax na ko yàlla sunu boroom ci téereem bu sell bi di biibal bi te ngeen xam ne émission bi di kàddu gu sell gi dañ ko lal ci kàddu gu sell gi nga xam ne mooy kàddu gu yàlla sunu boroom mu jox ñu ko muy biibal bi mu wax ceeg ñun wan ñu ci boppam jàngal ñu ci te wan ñu ci yan anam lañ koy jaamoo kon dañuy jàng ci kóllëre gu bees gi jàng ci ñaareelu bataaxal ba ñu jagleel Timote jàng ci aaye ñett ci saar fukk ak juróom benn ak saar fukk ak juróom ñaar yàlla sunu boroom dañu wax naan mbind mu sell mépp ci gémmiñu yàlla la jóge te am na njariñ ngir jàngal nit ñi yedd leen jubante leen te yee leen ci njub noonu waayu yàlla ji dina mat ba jekk ci bépp jëf ju rafet yàlla sunu boroom indil ñu téereem bu sell bi jàngal ñu bu ñu ubbee nag téere bu sell bi dañuy gis ne yenn saa yi yàlla sunu boroom dana tudd ay jaamam yi nga xam ne moo leen sàkk wax ñu nan lañu dundee loolu lépp nag ngir am lu mu ñu jàngal tey jii dañuy xool ci kóllëre gu njëkk gi xool ci xaaj bi ñu tuddee àttekat yi jàng ci dundu waajooju ñuy wax ci nasaraan Samson bu ma nee nag Samson ñu bari xam nañu waajooju wala boog dégg nañu lu jëm ci moom ba am na ay film yu bari yoo xam ne sax def nañ ko ci diggante Samson ak benn soxna su mu bëggoon ñu ko doon wax Dalida wante yàlla sunu boroom moo ñu indil xibaaru waajooju ñu naan Samson nga xam ne yàlla mayoon na ko kàttan goo xam ne nit musu ko am mu def ay mbir yoo xam ne musuñu dégg nit def ko mu nekkoon waaju xarañ wante yàlla indil nañu dund waajooju wax ñu mbootu dund waajooju wax ñu lépp li nga xam ne mi ngi jëmoon ci dund waajooju ñu doon wax Samson kon bu ñu jàngee ci téere bu sell bi ci xaaj bi ñu jagleel attekat yi ci aaye fukk ak ñett ba ci saar fukk ba ci aaye fukk ak juróom benn saar yi nekk foofu yépp day wax li jëm ci Samson yàlla sunu boroom di ñu wax naan ci aaye fukk ak ñett ci saar benn ba ci saar fukk juróom ñeen ñeen fukk ak juróom ngeen jéggal ma ba ci saar ñaar fukk ak juróom yàlla sunu boroom di ñu nettali foofu la nga xam ne moom mooy tàmbalewu Samson moomu yàlla sunu boroom di ñu wax ne moom waajuram wu góor mi ngi tuddoon Manoog te soxnaam dafa nekkoon soxna soo xam ne mënul woon am doom ñu ñaan yàlla yàlla sunu boroom feeñu ndaw si ne ko yow mii kat mënuloo am doom wante danaa la may nga am doom ju góor doom jooju nag bu juddoo nii ak nii ngay doxaleeg moom yàlla sunu boroom ca njalbeen ga wone foofu ab yërmande ndaxte soxna soo xam ne mënul woon am doom yàlla sunu boroom feeñu soxna soosu ne ko kat danga am doom wante doom ji bu juddoo nag ma ko jagleel te doom ji ci anam yi doom ju góor lay doon te ci anam yi ak anam yi nga koy yare yàlla sunu boroom wone foofu kon li nga xam ne mooy yërmande wone foofu itam kéemaan yàlla jagleel xale bi lu mag lu rëy yàlla ne xale boobu di Samson dañ ma koy jagleel ma am loo xam ne namm naa ko def dama koy jaare ci moom yàlla nag waxoon baay bi ne ko Samson moomu juddoo lii ngeen koy jàngal lii moo war a doon taxawaayam dafay bokk ci ñooñu nga xam ne dañ leen tuddee woon nazir ci tubaab ñu leen di wax nazarien mooy ñi nga xam ne dañuy dogu ne yàlla la ñuy liggéeyal wante ci kaw liggéey googu ñuy def am na yoo xam ne dañ ko war a xof am na yoo xam ne waruñu ko def mukk bi ci njëkk mooy kenn du leen wat seen karaw duñ ko dagg mukk ñaareel bi mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci xeetu sàngara du dugg mukk ci seen gémmiñ du dugg ci seen biir ñetteel bi mooy duñu laal loo xam ne medd la dañ koy xof fu medd nekk wala luy medd duñ ko laal duñ fa jaar sax te dañuy sàmm lépp li nga xam ne yàlla sunu boroom daf ko digle bi xale bu juddoo ñu tuddee ko Samsung te bu ñu xoolee Samsung li muy tekki ci baatu yahut mooy jant bu fenk jant la jant gu fenk loolu la tur bi di tekki mu nekk koo xam ne dañ ko jébbal yàlla sunu boroom waajur yi jàngal ko yooyu yépp wax ko nag muy màgg ñu ne ko kat yow fii nga war a teg sa tànk fële nga war a teg sa tànk ndaxte dañ la jagleel aji sax ji ba loolu amee yàlla sunu boroom di ñu nettali ci xaaj bi ñu jagleel attekat yi ci kóllëre gu ñëkk gi ci aaya fukk ak ñett ba ci aaya fukk ak juróom benn yàlla sunu boroom di ñuy wax ne Samsung moomu dafa àndoon ak kàttan kàttan goo xam ne foo ko takk weesu na ko Samsung nekk nit koo xam ne danaan dugg ci àll bi jàkkaarloo gaynde mu rey ko ak ay loxo neenam mu xeex ak gaynde gi rey ko ak ay loxo neenam Samsung mës na taxaw ak fanweeri noon moom képp ak ay loxoom mu boom fanweeri noon yooyu yàlla di ñu wax ne dem na ba ci xare moom Samsung moomu mu taxaw xeex ak junni noon mu gañe leen am ndam ci ñoom faat leen wante dafa am leneen loo xam ne yàlla sunu boroom mi ngi ñu koy nettali ci jëmm jooju di Samsung yàlla sunu boroom mi ngi ñuy nettali ne Samsung dem na fekk ndaw soo xam ne day jaay boppam mu nekk ak moom fekk na koo xam ne day jaay boppam mu dem nekk ak moom ba ne sax nañ ko ko may mu nekk ab soxnaam yàlla sunu boroom di ñu wax ne Samsung mus na dox ci biir àll bi ba gis ab medd ca biir medd boobu mu am lem mu soob loxoom ci medd googu nga xam ne dañ ko ko aay na ko yow kat medd sa loxo du ko laal mukk mu soob loxoom ci medd googu jël ca lem ba lekk Samsung def na lu mel noonu yàlla sunu boroom di ñu wax ne Samsung dem na ci biir noonam ya ña nga xam ne dañ daan fitnaal xeetam mu fekk seen biir ab soxna bu tudd Delila mu bëgg ko ànd ak moom ànd ak koo xam ne bokkuloo diine ànd ak koo xam ne sa noon la ànd ak koo xam ne pexem yépp mooy mu sànk la samsung ñëw joox ci biir askan googu gës gis fa ab ndaw ab jigéen bëgg ko ba nekk ak moom yàlla di ñu wax yu mel noonu mu jëm ci jëmm jooju nga xam ne moom mooy samsung bi loolu amee yàlla sunu boroom mi ngi ñuy nettali ne ñooñu nga xam ne ay noonam lañu woon dañu jóg dem ci soxna soosu waxtaan ak moom ne ko dimbale ñu ba nga xam ne waa ji nga xam ne jaar nañ ko fu nekk mënuñu fexe ba jot ko nga dimbale ñu ba ñu xam lan moo nekk ci moom fan lañ koy jaar ba mën ko noot ba ñu waxee loolu soxna si ne ko nag boo ñu ci dimbalee danañ la jox alal ju bari samsung di dem ci ndaw soosu di nekk ak moom ndaw soosu nga xam ne mi ngi tudd delila te bokk ci askan bi nga xam ne dañu noonoog askanu samsung yàlla sunu boroom di ñu wax ne ndaw si tàmbali di wax ak moom di ko raay di ko defal li mu bëgg di ko laaj naan ko yow sa kàttan gii nga xam ne jéggi na dayo wax ma lu la ko jox topp ko ci topp ko ci ba bés mu ne ko man mii kat lii moo nekk ci man dañ ma jagleel yàlla ba ma nekkee xale ba ma nekkee ci sama biiru ndey ba ma màggee lii ak lii laa war a toppatoo su ma ko bàyyee bu boobaa kàttan gi ngay gis dootul nekk ci man mu ne ko gis nga sama karaw gu bari gii sama karaw gu bari gii bis bu lañset jaaree ci sama bopp ba ñu wat ma bu boobaa damay mel ni ñépp dootuma am benn kàttan te ku ma fexeel dang ma jot bi loolu amee ndaw si dem wax ko ñi nga xam ne ñoo doon noon yi noon ya ñëw fekk samsung ndaw si nax ko ba wat ko noon yi ñëw dugg ci néeg ba song ko yàlla sunu boroom di ñu nettali ne samsung dafa jóg taxaw ne yéen samay noon fa ma daan jaar ak yéen laay jaaraat ak yéen tey na ma leen daan def moom laa leen di def yàlla nañu ci aaya fukk ak juróom benn ci attekat yi ci saar ñaar fukk ba ñaar fukk ak benn yàlla sunu boroom ne samson xamul woon ne yàlla génn na woon ci moom samson xamul woon ne yàlla dumbooyu na ko yàlla sunu boroom moo ñuy nettali loolu ba samson jógee ne kat la nekkoon ci man ma nga ca man ba léegi yéen noon yi nga xam ne jëw ngeen taxaw sama kanam fa ma daan jaar ak yéen laay jaaraat ak yéen nee na samson njortul woon sax ne yàlla bàyyi na ko yàgg na ba mu tàmbalee di def yooyu nga xam ne yàlla da ko ko tere woon ca la yàlla génn ci moom bàyyi ko mu yaakaar ne ba léegi la nekkoon ci moom ma nga ci moom ba tey donte mi ngi ci caaxaan donte mi ngi ci topp bakkanam donte mi ngi ci ñàkk déggal yàlla mi nga xam ne moo ne ko kat fii laa bëgg nga teg sa tànk mu yaakaar ne ba léegi kattan gaa nga ci moom yàlla ne ko déedéet samson man dëddu naa la yàgg na man génn naa ci yow yàgg na mu jóg ne noon yi fa ma daan jaar ak yéen laay jaaraat ak yéen la ma leen daan def laa leen di defaat noon ye jàpp ko yeew ko yóbbu ko tëj ko ci kaso def ko jaam fa mu mujjee mooy lan mooy ñu takk ko muy wal pepp ñu takk ko muy wal pepp ci kaso bi moom mi nga xam ne amoon na kàttan ba mën a rey junni noon ci ay loxoom neen ba mën a rey gaynde ba mën a rey fanweeri noon moom mi nga xam ne jaaxaloon na ñépp ngir kàttan gi mu amoon mu mujj lan noon yi jàpp ko takk ko def ko ab jaam di ko wawloo di ko walloo pepp foofu la mujj moom samsung mi nga xam ne ca njalbeen yàlla sunu borom nee na ay waajuram xale bii nga xam ne day juddu dangeen ma koy jagleel ndaxte am na lu ma namm te danaa ko liggéey jaare ko ci moom samsung lépp li ko yàlla tere woon mu def ko caaxaan caaxaan caaxaan topp bakkanam fëgg dënam ne dara munuma dal fa mu mujj mooy noon yi jàpp ko yàlla sori ko yàlla dummóoyu ko kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi ah.
kon mbokki auditeurs yi loolu la ñu yàlla sunu borom indil ci jëmm jooju nga xam ne mooy samsong mu soob aji sax ji mu wax ñu lu jëmoon ci dundu waa jooju ngir ñu mën ci jàng muy waajoo xam ne yaakaaroon na ne ku taxaw la waajoo xam ne yàlla jagleloon na ko lu rëy nit koo xam ne yàlla namoon na jaar ci moom def mbir yu rëy muy caaxaan di caaxaan ba mu mujj nekk ci loxo noon yi noon yi jël ko toroxal ko mu mujj faatu ndax caaxaan bu mu doon caaxaan noon yi dem ba xam noon yi dem ba teg loxo ci moom noon yi dem ba ëpp ko doole mu mujje ñàkk la nga xam ne moom la ko yàlla jagleeloon yàlla sunu boroom dañuy wax ne génnoon na ci samsong sori na woon ci samsong ndax dund gi mu doon dund ndax jëf ya mu doon def te samsong jàppoon na ne kat moom dara mënu ko dal jàppoon na ne moom ku taxaw la ku dëgër la amul dara lu mën a ñëw ba dal ci kawam ba gaañ ko wala sonal ko wante fa muy mujj mooy lan mooy noon yi dañ koy mëj a jàpp sonal ko yeew ko def ko ab jaam ëpp ko doole yàlla sunu borom dañuy wax ci kóllëre gu bees gi ci bataaxal ba ñu jagleel waa korent ba ñëkk ca aayo fukk ca saar juróom waa ba ci saar fukk ak benn saar fukk ak ñaar lii lañu yàlla sunu boroom wax ci bataaxal ba ñëkk ba ñu jagleel waa korent ci aayo fukk ci saar fukk ak benn ak saar fukk ak ñaar lii la yàlla sunu boroom wax nee na mbir yooyu lépp amoon misaal la ci ñun te bind nañu ko ngir artuñu ñun ñiy dund ci jamono ji lépp mat kon nag kiy naw sa bopp ba yaakaar ne taxaw nga moytu la nderteelu daanu ci bàkkaar loolu la yàlla sunu boroom wax nee na lii nga xam ne bind nañ ko misaal la ngir artuñu ngir ki nga xam ne naw nga sa bopp wala boog naw nga sa doole ba yaakaar ne taxaw nga moytu la nderteelu moytu la nderteelu yàllaa ngi ñuy artu jël jëmm ju mel ne samsung jox ñu ko muy misaal te yemul foofu itam dafa ñuy jox banni israel ba mu nekkee ca màndinga na mu doon dundee mu am yu leen doon dal ba ñu naagoo yàlla sunu borom indi yooyu yépp ne xool leen yéen sama jaam yi yii dama leen koy jox mu doon misaal ngir sama jaam ji nga xam ne naw na boppam naw na dooleem ba yaakaar ne ku taxaw la na moytu ngir bañ a nderteelu ba daanu ci bàkkaar ñi nga xam ne ñi ngi fëgg seen dënn yaakaar ne kat dara mënu leen dal ñi nga xam ne yaakaar nañu ne yàlla ngay ànd ak ñoom ñi nga xam ne yaakaar nañu ne lu ñu def yàlla ànd na ci te lépp li nga xam ne yàlla da ko wax dañ koy def daf ko tere ñi ngi koy jëfee lépp li nga xam ne yàlla daf ko digle du mooyu nañ ko fëgg seen dënn nag yaakaar ne taxaw nañu yàlla sunu boroom ne leen déedéet génn naa ci yéen sori naa leen ànduma ak yéen xamuma leen donte nag ñooñu am na lu leen yàlla jagleloon ca njëlbeen ga wante seen tànki caaxaan seen tànki fo ak topp seen bakkan mooy tax ñu nderteelu yàlla sunu boroom nag naan samay jaam yi ngalla bu leen fo yàlla naan jaamam yi ngalla bu leen fo bu leen topp seen bakkan bu leen fëgg seen dënd ba naw seen bopp ba lu leen neex ngeen dugg ci ndaxte bu loolu amee da ngeen ni nderteelu da ngeen daanu te danaa leen sori loolu la yàlla sunu boroom wax nee na ki naw sa bopp ba yaakaar ne taxaw nga moytu la nderteelu loolu di tekki lan loolu di tekki day dañu war a dellu saa su nekk ci yàlla sunu boroom dañu wara daw caaxaan dañu wara daw topp sunu bakkan ndaxte jëmm ji nga xam ne ak foo mënta bokk ak tur boo mënta yore ak ku mësa doon sa kilifa bu dee li yàlla sunu borom wax defuloo ko jàppal ne yàlla sori na la ak foo mënta bokk ak tur boo yore yow mii nga xam ne li yàlla sunu borom wax dégguloo ko du mooyu nga ko yaa ngi topp sa bakkan di caaxaan jàppal ne yàlla sori na la donte nag bés bu nekk yaa ngi naan yàlla yàlla yàlla yàlla sori na la loolu moo dal samsung mu fëgg dënn bi ne yéen samay noon fa ma daan jaar ak yéen laay jaaraat ak yéen yàlla sunu borom ne ko déedéet samsung la ma defoon ci yow dindi naa ko ndaxte caaxaan kan nga topp nga sa bakkan yaa ngi def li nga bëgg lépp li ma la tere moom ngay def man sori naa la sori naa la noon ya ñëw ëpp ko doole def ko lañ ko waroon def toroxal ko yàlla sunu borom naan yow mi nga xam ne fëgg nga sa dënn ba yaakaar sa doole ba jàpp ne taxaw nga ah moytul moytul moytul a nderteelu loolu moo waral jaam yi dañu war di dellu delloo seen bopp saa su nekk ci yàlla sunu borom la nga xam ne moom la wax ñu koy sàmm loolu rek moo ñu ciy génnee loolu rek mooy tax duñu nderteelu di delloo sunu bopp saa su nekk ci yàlla sunu borom loolu moo tax Paul di wax ci kolore gu bees gi di wax ci bataaxal bi njëkk bi ñu jagleel waa Corinthe ci aaya juróom-ñeent ci saar ñaar fukk ak juróom-ñaar nee na damay noot sama bakkan damay noot sama bakkan ba moom ko ngir yagal ngir ragal yeggal nit ñi xibaar gu baax gi ba noppi yàlla xañ ma ndam mu ne day noot bakkanam day noot yaramam ngir moom mi nga xam ne mi ngi yeggee nit ñi xibaar bu neex bi maanaam mi ngi leen di wax ci yàlla bu paree yàlla xañ ko ndam loolu di tekki lan mooy nga nekk naan yàlla yàlla te yaa ngi topp sa bakkan yàlla ne la danaa la xañ ndam gi nga xam ne moom laa la waroon jox wala boog moom laay jox ñi nga xam ne déggal nañ ma yàlla di wéy di ñu wax naan bul bàkku wala nga ndaagu waaye del moytu bul bàkku bul fëgg sa dënn naan man kat dara mënuma dal lu ma neex ma def texe naa ba pare yàlla ne déedéet del moytu del sàmm li nga xam ne moom laa la wax moom laa la digal wante boo nekkee ci caaxaan di fëgg sa dënn mu ne foo mënta bokk ak ku mënta doon sa kilifa danga lajj ndaxte man yàlla déggulu loo ma seydina isa almasi bi yeesu kirist di wax naan bu ñu xoolee ci injil ñu xool ci xaaj bi ñu jagleel Macë ci aaya juróom ñaar ci saar ñaar fukk ak benn ba saar ñaar fukk ak ñett lii la Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist wax nee na du képp ku may wax boroom bi boroom bi mooy dugg ca nguurug yàlla aji kawe gi ka cay dugg mooy kiy def sama coobare kiy def coobare yàlla bi nekk ci kaw nee na bu bés baa bésu pénc ba ñu bari danañu ñëw wax boroom bi boroom bi ndax du ci sa tur lañu daan wax ci kàddug yàlla ndax du ci sa tur lañu daan dàq ay rab ndax du ci sa tur lañ daan def ay kéemaan yu bari ci kaw loolu danaa leen tootu na leen musuma leen xam sori leen ma yéen ñi daan def bàkkaar nee na loolu dana am dana xew ñu bari ñuy ñëw ci kanamu yàlla sunu boroom naan ko ah ñun kat ci sa tur wax nañu ñun kat ci sa tur def nañu mu ne leen sori leen ma yéen ñi nga xam ne da ngeen toppoon seen bakkan yéen ñi nga xam ne da ngeen daan caaxaan loolu la Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist wax nee na itam ci injil ci xaaj bi ñu jagleel Mark ci aaya fukk ak ñeent saar fanweer ak juróom-ñett nee leen nee na dee leen fagaarlu ngir bañ a daanu ci kaw fiir dee leen fagarlu nee na dee leen fagarlu ndaxte fiir yaa ngi fi saytaane ngi sànni ay fiiram te waa ji nga xam ne mi ngi naagu fëgg dënnam naan kat man dara munuma dal wala boog nga topp sa bakkan naan lu ma neex ma def ndaw mbetteel ba su penc ba ndaw mbetteel loolu lañu yàlla sunu borom di wax indil ñu misaalu samsung nee na moytu leen te fogg ndax seen noon saytaane mi ngi wër mel ne gaynde di buy rëbb mi ngi ko wax ci bataaxal bi ñu jagleel Pierre ci ayu juróom ci saar juróom ñett bataaxal bi ñëkk bi ñu jagleel Pierre nee na moytu leen te fogg ndax seen noon saytaane mi ngi wër di rëbb ni ab gaynde seydina isa almasi bi yeesu kirist di wax ci injil naan moytu leen tey ñaan ngir bañ a daanu ci fiir nee na dee leen moytu te ngeen ni ñaan di wàkkirlu ci turu yàlla seen boroom di dellu ci yàlla seen boroom ngir bañ a daanu ci fiir ndaxte saytaane ñépp lay fiir amul xaaj ak seen ñépp lay fiir mi ngi jël ay fiiram di ko sànni ci tànku ñépp yàlla sunu boroom naan ki nga xam ne jàpp na ne taxaw na kooku moo war a gën a moytu kon mbokk yi yàlla na ñuy delloo sunu bopp ci yàlla sunu boroom tey moytu bañ a fëgg sunuy dënd jàpp ne kat sunu lépp mat na lu ñu neex ñu def lu ñu neex ñu wax fu ñu neex ñu taxaw déedéet déedéet yàlla sunu boroom nee na bu dee noonu nga mel xamal ne man kat dañ naa ci yow na ma dañee woon ca samsung ba samsung fëggee dënnam ne fa ma daan jaar ak yéen laay jaaraat ak yéen yàlla ne ko déedéet samsung man dañ naa ci yow yàgg na ndaxte da nga topp sa bakkan da nga topp sa bakkan yàlla sunu boroom ne yow mi nga xam ne jàpp ne nga taxaw nga na nga moytu ngir bañ a nderteelu àdduna nag dañu toll foo xam ne ñu bari dañu jàpp ne taxaw nañu seen lépp mat na lu leen neex ñu def lu leen neex ñu wax lu leen neex ñu def yàlla ne déedéet del fagarlu del moytu del def ndànk del dellu saa su nekk ci man kon mbokki auditeurs yi yàlla na leen yàlla sunu borom barkel ci turu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ te lii nga xam ne misaal la bu mu ñu jox ñu jàng ci bala daloon jëmm yooyu nga xam ne jaamam yooyu nga xam ne jox na leen ngir ñu doon misaal loolu duñu dal ndaxte yàlla daf ñu jox jëmm yooyu wax ñu lu jëm ci ñoom ngir jàngal ñu ci ndax la leen daloon duñu dal kon yal na leen yàlla sunu borom barkeel yal na ñu yàlla sunu borom barkeel ci turu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ mbokki auditeurs yi ma leen di fàttali sama numéro téléphone man pasteur Ahmed Fall 77 074 35 35 yal na leen yàlla sunu borom barkeel ci turu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ amin
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
Ooh, ooh.